asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñëpp maa ngi leen nuyu ñu njabootu sëriñ Tuubaa gépp bàyyi ma kenn di nuyu mbooleem tarixa yi ak ñu mën a nekk ci rek am lu ma bëgg ñu waxtaane lu gàtt mooy coow lu bari lii ne réew mi te du dara di ko sabab lepp nak golo rek la te golo ma ko ne xamna ci ci ba xol nekk golo boo gis ci bir rek bi ñu ko yew ci ndig la tak ceg bu duggal dugal ko ci kaf baa ñu yew ko ci garap lolit borom golo ba koy def te du tey xale yi ci ak coow di ko sànni mu len mu len di xaar ko waye bu galago toñe nak ba mu yaqé fi jamm borom golo ba lañ koy wax te kii ma dégg nii yàgg naa koo dégg muy wax waaye mosuñu koo amal solo te ñëpp ŋàbb ci di wax nag mooy bari bii ñu ko teg du palaasam golo moom ca kaaf ga rek wala ca taatu garab ga mooy fi nga xam ne eh, woon foofu lañ ko doon dugal dañ koo xam ñi nag dama yaakaar ne dañoo desee xam jikkoom li olof di wax naa ma wax la wax ma sa xarit ma wax la sa jikko loolu moo leen dal te it ndax ne leen ñun murit nag la sëñ Abdu Lahat doon wax rek Sëñ Tuubaa daal kenn du ko xeexal kenn du ko fayul moom fay na ko ba noppi te fayul na ko kon ñun li ñu war mooy gëm ko ak yaakaar ko ak liggéeyal ko mooy sunu war a gar suñu diggante moom waaye ko toll fële di ñu sànni xeer bu ko tontu olof day wax ni ku yéeg te ku la sànni nga wàcc fayu doo àgg ñoo baxtan la dama bëgg daal ñu xam ne jëmm jii daal ñi ko jël teg ko barab bii tam xam ni tooñkat la tam tooñ murid di tooñ tijaan di wax ci tarixa yi te bokk ci tarixa yi ndax wax na ne waa ñaseen la woon te waa ñaseen day dégguma benn yoon kenn ku ci bokk ku ŋàññi murit baa ngay ŋàññ waa Tiwaawan waa Tiwaawan dégguma ñuy ŋàññ waa ñaseen murit yi noonu kon moom bu continuer nii di ko def ay kilifaam ne fi te terewuñ ko wala ñi nga xam ne ñoo ko jot jox ko boobu mu def terewuñ ko ko ñun daal moom ñu naqari naqari war naa a gàtt daal ñoo jëloon suñuy carte jox leen ngir am ci ñoom yaakaar bu demee nag ba jël nag koo xamante ni moom tooñ képp lay ne ci wetam te genn kilifa diine munta sàkku dara ca présidence te jaaroo ci moom ñun dey ñun duñ tàllal kenn loxo li ñu sëñ Tuubaa defal doy sëkk ndax boo tàllee sa loxo sëñ Tuubaa ca loxoom de warutoo wëlbatiku di ko tàllal kenn am lu mutta jànk rek yëgle lay doon waaye yéeneem moom ku ne xam na ko mook jëfam waxam ñoo ànd di benn kon nag dama bëgg ñu xam ne bu fekkente ne lii ñu naqar yi naqar ñëpp ñu jiite réew mi yëg nañ ko te wuñ ko ñun daal nañ jàllu ngàbb sunu carte téye ko ndax législatif yaa ngi ñëw bu boobaa daañ xam ñun fuñ jëm ak ku ñu sànni sunu carte ndax Pastef day dafa niroog pas-pas bi yoonu murit am ba tax na li ëpp ci murid ànd nañoo ñoom ba li newoon ci réew mi naqari ñëpp ñu jële ko fi kon bu ñu delloo wëlbati ko ànd ak ñu ñuy naqara ñu ñuy tooñ la koy faj daal mooy duy wax wax sa yoon daal kenn ku bokk ci yoon wi du ci yëkkati wu làmmiñam di ko tontu baa nga koy wax lu loo xam ne wuroo koo wax ndax golo rek la golo moom tooñ rek la baax la jikko ja tooñ rek la baax ba tax na suñu borom ci àll ba la ko dëkkal du ñàkk na golo yu ne ci biir dëkk bi dañoo ami borom ñu yeew leen ci seen buum yeew ci ndigg la yeew ci garab ga di xont waaye nag bu fekkent ni borom golo gi day golo gi yàqal na ma baa mu tooñ ma du ma wax ak golo ga borom golo ga rek laay li ñu naqari ci moom daal ba fekkente ni mënuñu su ko saafara nañ téye suñuy kar ci législative bi xawal nuñ cay def bañ ca àggee buñ ko saafaraal nag fa lillaahil hamdu buñ ko saafarawul nag ah ñu saafaraal ko suñu bopp rek